amati mbégte dajeeg yéen ci bile jotaay jotaay bii nga xam ne li ko sabab mooy les 40 de carrière de la diva à la voix d'or comme ni koy defee rek daal di ñëwaat ci li nga xam ne mooy un aspect de la vie de la euh, de la diva de la reine de la musique africaine de la diva à la voix d'or tey ñu ñëw ci benn aspect bu important euh, ci wàllu euh, carrière am moom mooy communication. xam ngeen ne euh, maanaam artiste benn wàll bi moom mooy l'art qu'il euh, bi muy prôné maanaam li muy wane mais li nga xam ne tamit euh, moom lay échanger ak nit ñi ak la presse ak li nga xam ne moom mooy le monde en général moom mooy la communication te communication maanaam Coumba Gawlo macha allah yàlla da ko cee may lu bare bare bare looloo tax sax waral mu daal di créer ab groupe de presse tellement qu'elle euh, est par la communication, tellement elle maîtrise la communication. Bon, alors, euh, avec juste ses paroles, elle arrive à, à, à charmer son public, machallah. Donc, bon, alors, euh, avec sa pondérance euh, naturelle, avec sa prestance naturelle. Donc, plateau yi nga xam ne jot na koo def fii ci Sénégal également fii ci Afrique mais également ci àdduna bi nga xam ne rek fu ne invité nañ ko kon nag jis euh, ngeen Kumba Gawlo comme ni ngeen ko xoolee un plateau, euh, c'est un plaisir de la regarder évoluer, de la regarder développer ses idées. Donc, euh, Lolo également, dafa bokk ci qualité wu artiste, artiste boo xam ne vraiment un artiste qui mérite vraiment le nom d'artiste. Dafa war a mën am également cette sens, euh, ce sens de la communication, cette euh, capacité à capturer et à captiver li nga xam ne l'attention de son public et Coumba Gawlo loolu am na ko bu baax a baax donc loolu lañ leen loon ci 40 ans yi tey.